waaw euh, maa ngi leen di nuyu bu baax euh, di sant ñëpp ci teeru bi wax dëgg yàlla bi ñu dugg ci dëkk bi euh, bëgg rek lañ def ndaxte dëkk bu sell la dëkku diine la dëkku lislaam la kon bépp jullit bi nga xamante ne am na chance su teg tànkam ci dëkk bi rek def naa sant moo koy mooy mooy li nga xamante ne moo ko njëkk a mm-hmm. gannaaw bu ñu santee nag Euh, def nañu liggéey bi nga xamante ne moo ñu fi indi woon mooy dem saytu dispositif bi nga xamante ne opérateur yi opérateur de télécom yi moo xam Sonatel la mu ñuy wax Orange moo xam Free la moo xam Expresso la moo dispositif bi nga xamante ne teg nañ ko pour gunge pèlerin yi pour fexe ba million de pèlerins yi nga xamante ne taalibe yi nga xamante ne dinañ ñëw gàmmu si Euh, lu jëm ci wàllum jokkalante mooy téléphone mbaa internet mën a yem ma nga xamante ne képp ku fi ñëw rek moo xam da nga bëgg a jokkaloo say mbokk moo xam jumtuwaay yooyu dañ koy utiliser pour liggéey si nga ci di nga ko def ci anam yu yu yu jaar yoon donc looloo ñu fi indi woon dem nañ nag seeti euh, opérateur yi ku ci nekk ci ñoom euh, présenté nga ñu dispositif bi nga xamante ne teg nga Euh, ñu wax leen itamit ne ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax a baax te def nañ li leen war ndaxte ci seen cahier des charges bi nga xamante ne mooy contrat bi nga xamante ne opérateurs yi am nañ ko ak nguur gi lu mel nii da bokk maanaam mission de service public fépp fi nga xamante ne mbooloo dafay daje rek opérateurs yi war nañu fexe ba mbooloo moomu du am benn jafe-jafe ci wàllum jokkalante parce que service yooyu tey ci la lépp reposé wu moo xam euh, transfert yi nga xam ne léegi transfert d'argent yi ci télécom la basé wu moo xam santé bi ci wàllum urgence yi ñaan ñu ko yàlla waaye bu dara xewee il faut ñu mën a woote ci numéro secours yi il faut également ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ñëw teg ay dispositifs di liggéey ci gàmmu gi ñu mën a jokkalante moo xam force de défense et de sécurité yi police mbaa gendarmerie ñëpp rek journalistes yi yéen ñii nga xamante ne boole da ngeen di retransmettre événement yi en direct donc il faut que tout ce dispositif là soit au rendez-vous pour que wax dëgg yàlla ñooñu mën def seen liggéey ni mu ko waree ak nit ñi nga xamante ne ñu ngi fiy ñëw léegi nag félicitations yi wax nañ leen ne day xaar ba événement bi jàll ba gàmmu gi jàll ñu xool ndax Euh, engagement yi ñu jëloon ak dispositif yi ñu jëloon. permettre nañu ñu am qualité de service bu am solo. Mm-hmm. bu bu ko permettre ñu féliciter leen. bu ko permettre wul aussi euh, bu boobaa dina euh, xool rek. Mm-hmm. li nga xamante ne yoon moom la wax ci lu ma lu jëm ci yooyu ñu ñu appliquer ko. Mm-hmm. donc loolu moo doon solo li ñu indi woon fii ci ci ci ci wàllum liggéey. waaye nag ñu dolli sant yàlla bi ñu noppee ci loolu ñu dem nañ ci jumaa ji jumaa ju bees bi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi ko fiy tabax mu doon jumaa ju méngoog jamono hmm. ndaxte dispositif bi ñu ci teg euh, niñ koy tuddee sax jumaa connecté lañ ko tuddee hmm. euh, muy jumaa ju yanc te wax dëgg yàlla sénégalais yëpp jullit yëpp dugal yoon ci seen loxo pour mu toll fi toll fi donc sant nañ fa yàlla bu baax a baax li ñu permetre ñu visiter jumaa ji ba julli fa ñaari ràkk ñu am beneen mbég itamit mooy ñëw fii ci kër euh, suñu sëriñ ñi koy tuddee njool Fouta ñëw siyaar si ko siyaar si ko tàllal ko suñu loxo mu ñaanal ñu waaye tamit mu ñaanal euh, ñi nga xamante ne tey sénégalais yi ñoom lañu teg ci bopp réew mi ñu ànd ak seen sago ba bépp mbébét bi ñu am pour Sénégal rek ñu mën koo def si seen tey bakkan te muy doon njëriñ i tamit ci sénégalais yëpp ñaan nañ ko mu ñaanal ñu jàmm ñaanal réew mi jàmm ñaanal réew mi naataange ñaanal ñu lépp li nga xamante ne euh, tey ñu ngi koy ñu ngi ciy yëngu mu jëm ci wàllum développement rek ñu mën cee euh, mu mën a sotti donc sëriñ bi ñaanal nañu bu baax conseil nañu itamit sant nañ sant nañ ko bu baax sant itamit ñi nga xamante ne ñoo ñu fi teeru fii ci Tiwaawoon mooy ñoom Serigne Haadi si ak comité bi nga xamante ne comité d'organisation bi ñu permettre ñu visiter ñu visiter jumaa voilà.